gan gi mi ngeeg ñun euh, honorable Juliette Zenga ñu ngi lay tooñ sànq naan euh, coonoy campagne gee leen jàpp ñàkkul ba euh, ngeen biddanti waaye ñu ngi am mbégte ànd ak yow ci jotaay bi gannaaw bi ñu nasaraan si rëcce honorable nga nekkoon député ci treizième législature nekkaat candidate ci élection législative yi ñu dëkmal te muy doon quatorzième législature bala ñuy dugg ci bi ñu dëkmal bi ñu génn bu ñu doon tënk bilangu assemblée nationale lan nga ñuy wax donc li nga xam ne nekk dinañ ko téye ci treizième législature bi dëgg la ne que man si laa nekkoon ay texte yoo xam ne ne que dafay dafay harmoniser maanaam méngale lépp loo xam ne dañ ko defoon ci suñu dëkk ñu chiffé ko ci extérieur ñëwaat fii ci dëkk bi war ko harmoniser donc yooyu yëpp nekk na ci ay loi yoo xam ne ne que def nañ ko ci waaye bilan bu mag a mag bi nga xam ne ne def nañ ko tamit te nga xam ne ne jàpp naa ko mu jëm ci wàllu jigéen yi muy li nga xam ne ne xeex nañ ko si violence yi nga xam dañ ko def ci jigéen yi viol mooy maanaam buñ la sàkkoo wala ñu jël xale yu ndaw yi di leen tëddee wala ñi nga xam ne seen waajur dañ leen tëddee ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci seen wàllu liggéeyukaay ñu leen di jël di leen maanaam chantage di leen bugg sàkku ci loo xam ne nekk teguwul ci yoon donc loolu nekk na benn cible boo jëlee tamit fii nga xam ne nekk dañu jëm ci li nga xam ne ne que moom nañuy ami muy euh, pétrole a gaz gis nga ne amul benn toq pétrole bu amagum waaye nag teg nañ fi maanaam ay charte yoo xam ne ne bés bu ñëwee ñëpp dinañ ci gis seen bopp muy ñii nga xam ne ne tey ñi ngi fi ñun ñii ñëpp nga xam ne ne ñoo fi nekk di liggéey ci ci wàllu Sénégal nekk ci Sénégal bokk ko mais tamit ak ñi nga xam ne ne que ëllëg dinañu ñëw it mooy maanaam suñuy sëtëki sëtaat yoo xam ne ñëwul muy génération future muy tamit loo xam ne ne que dinañ ko fi teg ci loo xam ne ne que dina mun a li nga xam ne ne que moom mooy gestion bi parce que bu ñu tegee fonds de stabilisation dina accompagner li nga xam ne mooy exploitation bi ba suba duñ si am duñ si am euh, gàllankoor te boo xoolee li nga xam ne ne que mooy FMI muy fonds monétaire international gis nga ne dafa ne Sénégal il faudrait que nga teg li nga xam ne ne ko mooy njëg bi pour sénégalais yépp mun a dund li nga xam ne mooy njëgu cherté bi waaye président dafa ne du ko dindi benn yoon day continuer di subventionner loolu moo tax ne fii loi de finance rectificative bi dañoo cee def liggéey ba nga xam ne ne que daara mënatul ñëw ba nga xam ne ne subvention bi muy def ba yokkute ci courant bi amul yokkute nga gis mu am ci super bi waaye li nga xam ne ne mooy gasoil bi fi nga xam ne moom lañ social bi nekk mm-hmm. foofu daf ko bàyyi boo jëlee tamit li nga xam ne mooy gaz yi yi ñuy toggee muy butaan bi ci biir kër yi gis nga ne yokkuwuñu donc am na loi yu ñu teg ci foofu leneen li nga xam ne nekk nekk na muy ñun jigéen ñi jigéen yeeg xale yi gis nga ne xëyu ndaw yi joxaat nañu opportunité pour li nga xam ne ne président war a mun a accompagner xale yi ñu war a mun a am liggéey jot si liggéey ndax ñu xam ne ne que état du joxe liggéey moom rek waaye état dafa war a mun a harmoniser mettre li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne société privée yi dinañ ñëw pour mun a implanter wu pour war a mun a créer li nga xam ne ne que moom mooy liggéey waaye bu ñu nee liggéey tamit gis ngeen ne employabilité bi dafay am loo xam ne dañ ciy ànd muy xam-xam ak toogaay. te loolu yëpp dafay dugg ci bilan waa assemblée nationale. wa waaw loolu da ciy dugg parce que gis nga ne xale yi tey dañ leen obbil comme lu ci mel ni 3FPT. Mm. boo jëlee ci wàllu jeunesse boo jëlee ci wàllu jigéen yemu fa rek. Mm-hmm. pour war a gën a mën a tëral li nga xam ne ne que moom mooy euh, jàng bi xam-xam ngi pour nga war a mën a bu ñu toogee ci post bi ñu la jox. Mm-hmm. nga war ci mën a liggéey. xam naa ne bilan bi yëpp xaju fi honorable léegi quatorzième législature bi lan moo ci seen objectif yu gën a fës pour askan wi nga xam ne yéen a ngi toll ci ci campagne. waaw xam nga fu mu nekk nii continuité nañuy wax. Mm-hmm. parce que nag président li mu fi liggéey wax nga dëgg xajul ci émission bi sax. Mm-hmm. ndax boo ma mayoon waxtu sax du tax. du mu xaj <laughs> waaye nag nañu leer ne li nga xam ne président teg na ko fi. Mm-hmm. ñu koy liggéey pour pour émergence su Sénégal. ci bépp fànn mi ngi ci te nag bu ñu fàtte ne dañu am plan Sénégal émergent muy vision bi nga xam ne ne deux mille trente cinq la. parce que si vision boobu dem nañu si transformation structurelle TRB ak leneen ak yi nga fi gis ñu koy tabax ci infrastructure autopont yi. waaye humain mooy nit ñi ñu gën leen mën a jox li nga xam ne ne que mooy euh, xam-xam ak mën-mën ak taxawaay a mën a bi xam ne ne ko jiitu muy li nga xam ne mooy bi nga xam ne ne dañ ko a a teg ci yoon te gis nga gouvernance boobu ñu teg boo jëlee euh, yi nga xam ne ne moom la ITIE yore nga ne Sénégal dañ ko noté bu baax quatre-vingt-treize sur sur cent points mais ñu bëri nee nañu assemblée assemblée nationale taxawaay bi mu war a am ci saytu ni gouvernement bi liggéey ak ni ñu yoree xaalisu réew mi seen taxawaay des na ci looy tontu ci loolu nag la assemblée mosa di def hmm. assemblée mosu see génnee benn yoon te gis nga fu mu nekk nii di gis nga ne conseil des ministres loi de règlement génne nañu pour deux mille vingt et te dañu amoon retard ci loi de règlement yi mais loolu yëpp dañ ko topp di ko saytu te comme ni nga ko waxee tey dañoo teg li nga xam ne ne que muy beneen fonction pour député muy euh, évaluation des politiques publiques ñu koy war a saytu bu baax parce que ñun ñooy jox kitus ki nga xam ne ne mooy gouvernement pour mu liggéey loolu mooy contrôle action gouvernementale tey am na ñu évaluation de ces politiques publiques donc dinañu continuer war a mun a teg parce que politique publique yi gox goxaat yee ko moom nit ñee ko moom donc nit ñi nañ koy gisee nañ koy dundee ñun dañ ko war a mën a topp di ko def parce que assemblée. Hmm. moom mooy Sénégal en miniature fépp foo dem ci Sénégal am na ku la fa toogal ci biir assemblée donc loolu dafa am solo ne li ñuy liggéey yëpp dina doon continuité consolidation li nga xam ne ne que mooy action yi nga xam ne mooy tax Sénégal mun a tegu ci baax. Hmm. parce que li ñuy wax ne que tey da ngay gis ne que état am na li nga xam ne ne que moom mooy pouvoir am assemblée am na pouvoir am justice am na pouvoir ñun nag suñu pouvoir dañ ko toog. ba mu mot sëkk parce que li nga xam ne ne que moom nañu bëgg mooy Sénégal am stabilité Sénégal war a mën a jëm ci kanam Sénégal consolider lu mu am te lii nga xam ne ñu ngi fay jëm muy pétrole ak gaz bi dafa war a nekk loo xam ne ne que dégg nga ñun bari naan dëkk yu ñu am day bari coow waaye nag fu mu nekk nii déggatu leen coow contrat déggatu leen coow ne que nii dañoo jël xaalis dem fii parce que lépp dañ ko encadré te président Macky Sall xam ngeen ne am na si bu baax xam ci wàllu boobu. Mm. loolu moom moo tax ne que fu mu nekk si consolidation nañu jëm. jël nag en compte tout ce qui est politique publique parce que tey budget Sénégal dañu ne budget euh, programme nañu nañu wax li nga xam ne ne que lépp lu ñu lu ñu soxla mooy ay résultat yu concret ñu xam ne xaalis bu ñuy jël xaalis boobu dañ koy yóbbu ci fi nga xam ne ne foofu nañu soxla foofu lañ ko war a liggéeyee te wax dëgg yàlla teg lépp ci yoon respecté li nga xam ne ne que moom mooy vœu sénégalais yi. Mhm. honorable wax nga ko investiraat nañ la ci euh, liste euh, département bu Dakar ngeen wax dem ci législative yi ki ko jiite di Alioune Ndoye ñu gis ne président Macky Sall Ndakaaru jox na ci bopp loolu socialiste yi lan moo waral loolu. ah waaw xam nga macha allah dañuy sant yàlla rek parce que boo àndeek nit ngay liggéey ak ñoom donc euh, ñu gis ne que yaa ngi def jéego di ci liggéey ñu war la mën a jox cër boobu waaye loolu tamit sas lay doon parce que gis nga ne bi ñu génnee ci local yi ak même ñi nga xam ne ne que ñoom nañu nañu jëlaat xëy na ñoom seen ñoom si seen bopp gis ngeen liggéey yi nga xam ne ne liggéey nañ ko fi donc de telle sorte que ne ñun ñëpp fi ne ndax mënoon na investir ñeneen tamit ñoom ñu ñu jàpp ci liggéey bi la bu ñu def parti bi parce tamit di jox li nga xam ne nekk taxawaayu parti socialiste si biir coalition bi parce que parti socialiste bi am na représentativité bi am na parti socialiste bi tamit am na li nga xam ne ne mooy confiance mooy li nga xam ne ne di respecté waxam ndax loolu duñ ko sukkandikoo ci fa Ousmane Tanor nga xam ne si foofu la ñu diglee di ko liggéey ndax nee na koo àndal waroo ko di ko jàmpaaka da nga ko war a jàppale gunge ko pour li nga xam ne ne que mandat bi ko wax mu mun ko mun a sottil si jàmm ak ci foofu la président sukkandiku ba jox investiture li nga xam ne ne mooy ñun ñii nga xam ne ni ñu ñooy waa parti socialiste waaye di woo ñëpp ñu xam ne ne ñoo bokk ndey bokk baay par la coalition ak ñi xam ne ne que ñooy population bi ñu xam li ñu bëgg pour Dakar mooy stabilité liggéey Dakar defar Dakar ndax tey boo xoolee xaru xaru xaru kanamu Dakar nga xam ne ne que fu mu nekk Dakar wax dëgg yàlla defar nañ ko mi ngi ci yoon bi di gën a rafet parce que buñ ko fàttee jamais que la capitale du a janoog seneen yeneen naataango socialiste Barthélémy Diaz ak ñeneen ak ñeneen ndax xeex xeex bi dana yomb da ngeen di wax ne socialiste yi ñooy borom Dakar waaye ngeen di janoo ak seen yeneen nawle socialiste est-ce que tiitoo leen ni xëy na yëf yi mën naa dem bañ a demee nam daan demee xam nga Dakar moom ku ci jël ni ñoom Alioune Ndoye hmm. xam nga ne fu mu nekk am na melokaan ndax gis nga nit da ngay am yar am teggin xam ki nga xam ne ne ñooy kilifa te xam tamit fi nga jëm donc loolu dafa am solo ci li nga xam ne ne que moom moom ñun moom nañ ñu jëlee teg ñu fi parce que cor euh, tradition ak coutume ak li nga xam ne ne que moom nañu am si suñuy réew ñu xamee ko Sénégal donc ñun loolu dañ koy teg ci kanam di ko doxee am na loo xam ne ne doo ci dox ci fenn ba gis ak wax bu ñaaw man mii di wax ak yow liggéey naa ak nga xam ne ne mooy Barthélemy Dias fukki at ak ñaar nekk naa fi chef de cabinet nekk naa fi directrice de cabinet hmm. bu doon tey da ngay génnee ñaaw ñaaw wala nga weer nit ki di kon porte tey fii du ñu toog di ko wax donc dafa am yoo xam ne ne ñun melokaan yi nga xam ne ne moom la PS toogee yooyu melokaan nañu am tey li ngay gis tey moom moomu ñu toog di ko wax ak di ko def ak façon yi ñuy def loolu doo ko gis ci ñun doo ko ràññee ci ñun beneen bi boo jëlee ci wàllu liggéey xam ngeen ne fii Alioune Ndoye lu mu fi def ci li nga xam ne ne que moom mooy réalisation des collectivités territoriales mooy charte li nga xam ne mooy commune yi gis ngeen ne que tey lim fi réalisé si patrimoine loo xam ne commune moo ko moom kenn waxatu ko boo jëlee ci Jean Baptiste tamit idem boo jëlee tey ki nga xam ne ne que tamit moom mooy Bamba Fall gis nga tamit li ñu def boo jëlee ki nga xam ne ne moom mooy Jibril Waat di nekk fee tamit gis nga donc Barthélémy Diaz tamit ñu ne mu ngi liggéey di waaw fu lu ba liggéey kañ jël leen rek teg si loxo donc dafa am yoo xam ne ne man li may wax dama ne commune dangay am patrimoine nga mm. téye ko ne lii man maa ko moom liggéey nañ ci si fii nga xam ne ne que tey mu ngi noonu tey yàlla def mu mu nekk ci ville de Dakar tey ñun li nga xam ne dañu soxla moo doon li nga xam ne ne ñu liggéey ba ñu téye ne lii lam fa fekk la de fu mu nekk. Mm. waaye nag li nga xam ne. Ah, waaw nañ ko may tuuti ndax temps bi Aliou am ba réalisé tamit Barthélémy Dias dafa ko ko lool nañ ko ko nangul. dama ne la dama ne le patrimoine. da nga mm. koy consolider wuti da koy wuti ba pare consolider ko loolu jamono yi moom nekku ci Barthélemy Diaz dama ne loolu ku ci nekk laa la wax tey dañ la jox opportunité parce que tey ñi voté le code général des collectivités territoriales moom mooy pay parce que mu ko fekkoon ci assemblée nationale sous coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko faloon teg ko fa donc moom ci boppam boo leen ko jëlee mooy ñi xeex pour que le code général des collectivités territoriales ñu teg ko te déggoon na ci boobu temps ñu naan waaw jàppante na ci xalifa parce que mu ne dañ ci def donc dafa am loo xam ne ne bu ñu fàtte histoire bi léegi nga xam ne moom nañu am mooy que la nga am ci sa commune loolu nga war a mën a jël ndax commune bi nga xam ne fii la jógee dem commune trois milliards et quelque la woon donc tey boo demee tey nga dem ville on attend des réalisations parce que tey ñun li ñu dund ñun commune Mermoz Sacré-Cœur amuñu ci réalisation yi ñu ci soxla woon ci li nga xam ne ne suñu budget moom moo ko am de telle ne tey boo ko amee tey di nga bëggal boo demee ci fii nga xam ne ne pala la alindooy tey nekk gis nga école bi bi Ndiaye gis nga ne defal na ay appartement sociaux lépp luy juma bi nekk foofu dindi na ko tabaxaat ko defar ko jël ay xale yi nga xam ne ne ñoo dëkk ci gox bi nag laa wax ñi nga xam ne ne ñoo yeewoo ci gox bi embauché leen fa ñun tey boo duggee tey ci commune Mermoz Sacré-Cœur ña fay liggéey di si ñu bari dëkk dëkkuñu ci commune bi boo demee ville de Dakar idem jamono tey ce qu'on mooy que ne li nga xam ne ne fa nañu dëkk te bu buggee dem émergence il faudrait que nit war a mun a xam lan nañu moom lan nañu sañ a def ak lan nañu sañ sañ a euh, euh, euh, kii investir donc il faudrait que tey ñu am am am boobu am conscientisation boobu pour war a mun a émanciper ñu wax ci campagne bi yéen a ngi ci honorable ñu ci tiit nag fitna gu bari waral imaam yi woote ci ay xutba ndax ni ngeen tàmbalee nii yaakaar ngeen ni dana wéyee noonu ragalu leen itam fitna jóg ci campagne bi ba xëy na xajamal ah incha allah ñun de wax dëgg yàlla xalaatuñu benn yoon hmm. débordement mooy maanaam mu am ay yenn yoo xam ne ne que boolewu ci te dëgg la imaam yëpp def nañ di rafetlu imaam Samb li mu waxoon ci grand euh, kii euh, mosquée donc gis nga li mu ci waxoon nee na politique yi yéen moomu leen dëkk bi yéen a fi gën a tuuti ñun ñoo fi gën a néew li ba pare bugg tas dëkk bi mënul ne donc il faudrait que ñu xam lan nañ ñu may ak sañ-sañ bi ñu am donc loolu nga xam ne ne que moom la ñuy wax ñun da ñu ko yàlla te madame la tête de liste nationale le euh, ministre Mimi Aminata wax na ko si si si def campagne bi si ouverture campagne bi. jël ngeen ay nervi wala jëlu leen. Euh, mu ne. ma ni am na ay nervi ci seen i caravane wala amagu ci. nervi dañ dégg ko xam nga ah. ñu ngi ci ñaari fan ba tey ñetti fan. Mm. te ñenn ñi si seen si sa collègue yi am na ñoo xam ne nag ñu ngi ñu topp gisuñu fa nervi gisuñu sax ay garde corps donc ñun ñooy dem ak di ñëw gis nga de <laughs> démb liggéey nañ ba sonn ba ñibbisi <laughs> daa biddanti waaye gis nga ne vraiment amu fi nervi parce que loolu du suñu objectif. Mm. suñu objectif tey aujourd'hui mooy que nag bépp lu ñuy wax parce que turu nervi sax loolu warul ndax ay sénégalais nañu bokk Sénégal ñun ñoo war a mën a développer suñu dëkk donc lépp loo xam ne da koy koy def mu jëm ci beneen sénégalais loolu baaxul donc man dama appel la boo xam ne dañ ko def te dégg ngeen président de la république lu mu wax moom tamit keroog bi bi ñu paree julli it bi donc nee na leen que fu mu nekk nañu dem te duñu toléré benn yoon yooyu nga xam ne nekk dafay yàq te loolu luy yàq nag dañ ko war a xeex te ñun ñëpp mën a boole di ko xeex di ko dénoncer donc nag waxuma sunu camp waxuma ci camp wu feneen mais ñun ñëpp en tant que sénégalais bëggal Sénégal jàmm bëggal Sénégal mu développé mu jëm kanam war a mën a xeex loolu donc ñun daal fu mu nekk avec la départementale bi nga xam ne nekk mooy investiture bi muy le ministre Alioune ñun ñëpp ñi ngi ànd en tout cas di dem di def suñu sunu campagne waxtaan ak nit ñi parce que les visites à domicile loolu moo ñu yitteel dem ci Sénégalais yi wax ak ñoom ñu xam ne ne que fii nii dakaar ñun ñoo ko moom parce que Dakar ñun ñoo fi dëkk Dakar fii nañu juddoo fii nañu màggee te ñun suñu sas mooy ñu defar dakaar taxawal Dakar waxal Dakar lijjantil Dakar pour que Dakar gën a mun a développer. jërëjëf euh, honorable Juliette Zenga bokk ci bureau politique bu parti socialiste jiite quatrième coordination bu ma juumul ñu amoon mbégte dalal la ci matinalu mi FM tey euh, fàttali itam ni candidat nga ci élection législative yi ñu investir la ci liste département bu Dakar.